ay gars yu tiit rek ñoo wax parce que boo leen gisee ñuy wax euh, bu mu doon réglement de compte. Mhm. nee nañ bu mu doon réglement de compte wala doon reddition ah, de compte ma ne na doon réglement de compte. jàpp dégg nga dafa war a doon dafa war a doon réglement de compte xam nga lu tax. Mhm. réglement de compte foo ko déggee Clédor am na lu xew. boo deful dara règlement de compte du am. kon ñoom koñ ñoom kon ñoom mm-hmm. nangu lañ ne dara am na. Mm-hmm. man su ma rombee kër ñoom jàpp ma sànni fa ay xeer suba ba ngoon. Mm-hmm. di di di joor xeer di joor ay xeer di joor ay xeer ba sori. mu am benn rakku njàpp bu ma dogaale. li ma tucc tuccal ci koñ bi am koy atte ñu bàyyi ko règlement de compte la ah, am na lu ma def saabari am na lu ma def en amont am ñu doo ko wax règlement de mm. compte bi mm. kon ñoom lan ma war a ñu utiliser le mot bu mu mm. doon règlement de compte c'est kon am na ay compte ñu war a régler man nag je suis pour ñu régler compte yooyu non parce que sénégalais yëpp demande sociale kooku moom c'est une demande sociale et heureusement que nguur gi mu ngi ciy dox parce que euh, yoon bi ñu jël mooy APR Clédor parle euh, d'une justice vengeresse des vainqueurs et la neutralisation des adversaires Clédor bah, tu veux qu'on en parle Parce oui, que nous, faut qu'on du côté euh, euh, reddition des comptes ndax commencé na parce que. non c'est la troisième partie de la clé d'or. C'est euh, le troisième deuxième partie deuxième la clé d'or. ñu demee ci ci ci APR. oui. Nous, ñu ni lan justice. Euh, vengeresse oui. Oui, euh, il faut kon ñu wax ñu xam ñom lan lañu wax. ak lan justice justice euh, de vengeance ou justice vengeresse. parce que il est bon nous décrypter sur le plan psycholinguistique. Sen, non bul bul patience tout rek. parce que c'est important ñoom li ñu li ñuy ragal. Mm-hmm. xam nga dañu titrer justice vengeresse. Mm-hmm. donc mais ñoom dañu commencé def ay aveux déjà. Mm-hmm. parce que nous, ni pour l'alliance de la république euh, l'APR et conformément aux dispositions légales mm. dans le cadre d'une reddition de compte, sans préméditation de nuire. Euh, mm-hmm. il convient de distinguer entre les manquements qui sont de simples fautes de gestion. Mm-hmm. madame de gestion faute de gestion et ceux susceptibles d'être qualifiés d'infraction mm-hmm. donc il poursuivent hein, faut ainsi pour les premiers nous il y faute de gestion des explications peuvent être demandées aux gestionnaires des pièces justificatives exigées Madame, vous savons que ni faute de gestion mm-hmm. mën nañ pièces justificatives ou euh, euh, euh, poser une question questions mm-hmm. si si une gestion donc vous avez des pièces justificatives

ñu ni eux ils ñaari pluriel mm-hmm. nguur mm-hmm. ils proclament avoir choisi la judiciarisation la pénalisation la prison ainsi que l'annonce les médias avec la réfection des cellules des cellules de la prison ñom nee nañu mm-hmm. ñi daal yet bi la ñu jël pour dóor leen pour tëj leen ci kaso bi te nee nañu sax nga di kaso yi ñu kaso yi bu ñuy peinture kaso yi lu ci seen yoon luñ ci jaaxle xam nga léegi nag ñu comme on le voit déjà mhm. avec les incarcérations de nos camarades sur la base d'infractions passées, ba Diakhaté Ahmed Suzanne Camara fàtte nañu imam ba de ki sant Ndaw mhm. wuñ ko limuñu ko ñoom seen ñaari nit yi rek la ñu donc avec à l'issue des réunions du conseil supérieur de la magistrature la justice de mhm. Diomaye est en train de devenir une justice euh, des vainqueurs donc ñoom fi mu nekk dañoo jaaxle. Mm-hmm. parce que nous nangu nañu ni dañ leen war a mm-hmm. mais nee ñi nga xam ni dañoo ci oui du ñëpp def lu grave am ci faute de gestion rek la. Mm-hmm. lan faute de gestion yow jënd nga bouteille ndox buy jar 100 francs... oui mon oncle. nga ni 1000 francs nga facturé faute de gestion la mais la. sàcc nga 900. wala jënd nga micro bi waaye amul facture. Mm-hmm. mënuñu xam ñaata nga ko jëndee nga ni nangam nga ko jëndee te présenté woo facture défaut de pièce justificative la wala nga ni dépensé nga nangami million mm-hmm. waaye foo ko dugal amoo facture fi nga ko dugal loolu défaut de pièce justificative la nee nañ ñooñu nañ leen laaj rek ñu indi pièces yi maanaam ñu. jéem a jéem a rëbëjëwaat këyit yi quoi xam nga mm-hmm. ñoom ci këyit dañ cee aay mais waruñu leen cee yóbbu kaso loolu yëpp nag sàcc la maanaam nga dépensé ay millions te amul justificatif sàcc la nga surfacturé benn bouteille buy jar cent franc mille franc sàcc la mm-hmm. kon ñoom dèjà ñu ngi nekk di àtte seen bopp ba noppi di xalaat ni la ñuy yeesal prison yi pour ñoom la ñoom kay dañ ci war a sant yàlla mm-hmm. parce que suñu gars yi ah. ci prison yu metti yu xat yu yu insalubre lañu lañu la nekkoon considéré nañ leen kon bu ñu demee ba bay defaraat les lieux de privation de liberté mm-hmm. parce que ñi koy defar dañ fa jaar xam ni foofu y a quelque chose à rectifier mm-hmm. donc euh, ñoom nañu garder seen sérénité rek bu fekkee ne defuñu dara ils n'ont rien à craindre mm-hmm. non seen communiqué mu apa mënu koo weesu non ñoom ñu ngi àtte seen bopp waaw ñoom ñu ngi atté seen bopp mais nag bu nag nag nag dafa am na ñoo xam ne jarul yóbbu kaso ki nee na daal euh,

Mhm. Hein, après avec le déclenchement dans les jours et semaines à venir d'une vaste entreprise de règlement de compte sur fond de soi-disant reddition de compte et d'auto-blanchiment, etc. donc nous sommes fan di ou wala semaine nous, ñoom lu ñu ciy tiit. est-ce que dañoo gisaane. ah lii de ñoom ñoo ko bind. Euh, te ñun ñu ngi doog ñu ngi doog tek juge yi de ak procureur yeeg. Euh, cour d'appel ak yooyu yëpp ñu ngi leen doon. parquet financier bi parquet euh, ah, parquet financier bi dugg ci man problème parquet euh, financier bi kii kat moo son film motax bëgguma dugg ci parquet financier bobu moy mooy ñëw mm-hmm. deuxième. non mais avant bobu duñ wax ci ñu bees ñi ñëw tamit. man ñoo ci laay si lay nekk kay Ousmane Racine Thion Clé Moustapha mu nekkoon mm. juge bi nga xam ne mun nañ ne moo joxoon rek décision du 14 décembre 2023 pour ñu réintégrer qui dit Ousmane Sonko si biir. Euh, liste électorale yi moom nag moom leen mu euh, président du tribunal de grande instance de Mbour. dit di euh, le juge Sabassy Faye aussi hmm. mu nekkoon fene Ziguinchor moom tabb neen ko mu nekk aussi président du tribunal de Fatik Moustapha. waaw ñoom ñaar ñëpp am promotion mën nañ ko tuddee hmm. parce que ci lañ daan woowee bu njëkk ba ci jargon juridique, tribunal départemental lañ jóge hmm. ñëw ci tribunal régional. Euh, bu dee jargon bu njëkk ba la balaa ñu doon wax tribunal euh, de grande instance. léegi tey jii euh, man je suis pour ah xam nga tax ma ne je suis pour. oui parce que réew mi dafa toll woon foo xamante ne tey jii ils ont osé dire non quand il était très difficile de dire non. Mhm. waaw amoon na benn jamono waxoon déet dafa metti woon trop. léegi ñooñu jëloon seen courage à deux mains man damay jàpp ne ñooñu mooy nit ñi nga xamante ne. Mhm. amoon nañ valeur parce que su fekkente ne yow da ngay àtte. Mhm. ñu tegale ko comme ni ñu ko waxee texte yi nekk fii. ñu ne nit ki bu ñu ko jàppee contumace am mhm. tëb na kenn waxatu ko waaw ma dégg fii ki nga xamante ne mooy ancien procureur Aliou Aliou Ndaw ma def ak moom entretien mhm. mu ne am naa cas bu mel noonu mhm. ma nekk naa procureur am cas bu mel noonu waa ji am na lu mu dafa ñu jàppee ko leen waaye bu mu ñëwee loolu dafa anéanti ñu dem atteji ji ko mu ne ma kon lii ñu wax ni du ay caaxaan kese la amul amul kenn ku taxaw sax mën a wax ni leen def léegi ñooñu si si si caaxaan yooyu ñu nekkoon ñu ñëw ba daje ak kenn ñu daje ak sabasifay sabasifay Sabasy ne lii ay caaxaan la daal di koy faase mhm. waaye léegi kooku def loolu léegi après da nga xam ne kii am na am na gëm yàlla bu nekk ci moom mhm. am na ragal yàlla bu nekk ci moom mhm. boo xamante ne boo ko gënee jëmmal mu dem ci kanam dina gën di gën a am benn justice boo xamante ne dafay jiital li ñuy wax probité morale loolu mooy li nga xam di moo ci gën a am solo beneen mbir bi ci am tamit. mooy ki nga xamante ne tabb nañ ko. Mm. Euh, moo di euh, Ibrahima Ndoye. oui nekk nekk nekk nekk nekk procureur de la république. xam nga kooku euh, vendredi dommage def ma woon émission ak yow mais ak Abdou Khadir laa ko defee. Mm. maa ngi doon wax ne Ibrahima Ndoye nit ñi pressentir nañ ko ci post boobu nga ne moo di procureur de la république. Mm. te bu amee du bett kenn. def na fi jaloore def na fi jaloore bu nek def na fi Ibrahima Mbaye très brûlant mu mu mu dee ko. la prise de responsables ak ak ak ak njambarte go xamante on se souvient de ce dossier avec euh, Cheikh Béthio Cheikh Béthio mais mais bi mais bi gëna a grave mooy Baratal bi. mais Baratal bi mu leer na état moko bëgg faagaagal. Mm. ñu né la dóor ko 5 ans de prison ferme. yow nga ñëw né man duma ko dóor 5 ans de prison ferme nga ne la parole est la plume est serve la parole est libre. Mm. loolu lañ ma sama yara ci wax. waaye man sama àqulaay taalaay de man xam naa ne deful. Mhm. moo tax cinq yi ñuy wax moom man gëwuma ko pour euh, juge bi nag yaa moom mbir mi mi ngi noonu. Mhm. man dañoo bëgg ma tëj ko cinq waaye man xam naa ne deful. dañoo sàkk dañoo bëgg sàkku si ma tëj ko cinq ans ba ba daal di ne yàllax baarataal bàyyi ko mu dem loolu bu amoon courage loolu du am. Mhm. mu dem dalaat tamit ñu yóbbu ko Thiès mu dal ci dossier Cheikh Béthio Thioune bi. affaire avec affaire Médinatoul Salaam. jamono jooju Cheikh Béthio amoon doole. amoon na doole bu baax baax a baax sax. ñu bëree bëri gars yi nañ pression fu ne la jógee. Mm. mu def li muy def jàpp ñàmburam. Mm. jóge fa dem Saint-Louis dal ci dossier fàllu seen étudiant bi nga xam ne dañ koo faatoon. Mm. c'est vrai dossier buñ ko jox ñi la ak njàmbaate ngi mais nag du bett kenn parce qu'il fut le substitut de Ousmane Diagne. mu mm-hmm. nekkoon substitut bi mu nekkee procureur fii procureur de la république. oui jeune magistrat nekk koo xamante ne tey jii amul lenn loo xamante ne mën nga taxaw ne saa waay fii corrompre nañ ko fa fii ger nañ ko fa lii te boo waxtaanee ak ñi nga xamante ne xam nañ ko wala ñu jege ko.

ñu ne Ibrahima Ndoye tey jii par exemple ba ñu bëggee a dóor di moom lañ jëloon teg ko ci poste mu dóoraate comme ni ko Macky doon defee xam nga ñoom soxlawu ñu soxlawu ñu am juge yoo xam ne dañ leen di déggal pour ñu dóor leen xam nga loolu mooy différence bi ñële dañ doon créer xam nga booy créer da ngay soxla ku def nii pour mu ñëw jàppale la si ngay créer mais ñii dañ fa fekk di di di di factuel mm-hmm. dañ fay fekk lu ne jung lu ñëpp gis ko léegi soxlawu ñu créer lu ñu soxla mooy ku jub rek mu ñëw àtte mm. xam nga li ma la maanaam ki def délit yow kële da nga ko doon wëral délit ñoom dañ doon wëral ñële ay délit te ñi ñëw ñoo gis ñu am ñu def délit hmm. loolu kon ki nga soxla mooy ku ñu atté ko rek hmm. ñële nag ñoom ñoo gënoon metti liggéey parce que ñële dañ doon wëral waa Pastef ay délit hmm. pour charger leen ko pour mën leen a tëj loolu moo tax ñaari bokkul du benn léegi nag ñii ñu indi tey ji dañoo war a sant yàlla su fekkoon heure bi ministre de la justice nga dégg ñu la par exemple euh, Amadou Ba Pastef lañ def ministre de la justice loolu lu ñu wax bu leen neexoon ñu def ko président Diomaye bu ko def mu def Amadou Ba mi mi dem député tey ji ministre de la justice. na ko sax. waaw ministre des forces armées nga indiwaat keneen koo xam ne si yow la bokk ministre de l' ngeen ko bokk ci yow. Mhm. su boobaa nag nga jàkkaarloo ak ñoom ne li ngeen doon def la ñu ne delloo tey mhm. Mhm. ji mii Diomaye di keneen ak keneen ak keneen seen liggéey ni ñu ko defee benn virgule duñ ko jindi c'est ku aj da bañ ku téen loolu moo leen sonal mais nag man dama dama jàpp ne dañu war a sant yàlla bu baax a baax ba ñi leen indil ñëpp dañu am njort bu rafet ne ñi kat ay nit lañ ñoo xamante ne kenn mun leen corrompre. Mhm. kenn mun leen abal ay gët kenn mun leen xooloo foo xam ne doo leen neex. merci beaucoup Mustapha. Euh, analyse Amna solo euh, Clédor qui euh, récompensé mu récompenser finalement il est nommé président du tribunal de fatigue, le juge aussi tu nommé président du tribunal de grande instance Bumbourg, qui dit Ibrahim Ibrahima aussi qui est très proche aussi du ministre de la justice Ministre aussi nous, teg ko li nga place mais Clédor vraiment les nominations est-ce que vous nañu euh, finalement euh, dañoo rek a euh, ñenn si un yi nga xam peut-être dañoo jege ministre de la justice mais qui était favorable aussi à ce projet de PASTEF. waaw le casting il est très bon. parce que le ministre est un magistrat boo xam ne bañ ko fa jëlee ça fait que quelques mois. Hein. Mm. donc xam na collègue magistrat am yëpp ñan ñoo ci jub gis nga ñi jub. Mm-hmm. dañuy xamante seen biir. Mm-hmm. kon c'est un très bon sélectionneur bu ñu doon wax ci affaire équipe. moo tax ma ni le le casting et le coaching est très bon. parce que mom xam na ñëpp ñi nga xam ne ñooy ay magistrats intègres yoo xam ne mën nañu compter ci ci ci ñoom comme euh, euh, ki nga xam ne Ndoye bi nga xam ne moom la def. procureur Ibrahima Ndoye bi nga xam ne moom la def procureur de la République. ñeneen ñi aussi c'est dans la même veine parce que loolu mooy avantage parce que moom moo leen di gën xam que Ousmane Sonko. moo leen di gën a xam que Bassirou Diomaye Faye moo leen di gën xam que le grand public parce que ñoom yi nen la te moom doyen la quand même ci magistrature bi yàgg na fi. Mm-hmm. il a été mon substitut du procureur en 94 moom mi euh, l' actuel ministre de la justice. Euh, kon moom Ousmane Diagne Ousmane Diagne yàgg na ci magistrature. kon au lieu ñu gisee ko ay jege ñaaleem nañ ko ay collègues am yi nga xam mën na compter ci seen probité morale ak ci une valeur parce que ils sont conscients que dañu war apporter ay rupture dans l'administration de la justice parce que loolu moo waraloon assise de la justice mm-hmm. pour ñu am une justice boo xam ne euh, mësuñu ko am depuis les indépendances parce que nous mës obéir aux commandes de l'exécutif. mais dangay xool ku mel ni Bougazelli kan moo ko génne. Mhm. Mhm. magistrat moo ko génne. Mhm. ci ban prétexte raison de santé Ousmane Sonko nekk fi woon ci comment ci grève de faim. Pape Alé xaw fi dee ci grève de faim. est-ce que libéré nañ leen pour raison de santé non bu ñu dee woon sax ñoom dañuy fecc. deux poids deux mesures Ousmane Sonko li ñu ko doon accusé ci dossier à Sarr xam nga dara amu ci mais am na benn waa APR bu ñu emprisonné woon ci kaso bi avec des preuves matérielles à l'appui ci cas de viol sur une mineure. du mhm. grave mais kooku dañ ko génnee ba ku ci wax sax mu ni dalay porter plainte mhm. te ñëpp ñi sur événement boobu yëpp xam nañu kii moom nu mu ci mën a génnee jaaxaloon na ñëpp nu mu ci mën a génnee mais génnee nañ ko ci. Euh, les faux passeports diplomatiques les passeports diplomatiques trafic trafic passeport diplomatique on a sacrifié deux deux deux deux, deux personnes. Mhm. xaw leen defal un simulacre de procès jàllale leen fële après gagner pour venir au ministère de des affaires étrangères la présidence parce qu'il faut venir délivrer délivrer passeport diplomatique Donc mhm. donc justice est moo fi Quand kon tey dit un Ousmane Diagne bu a le ministère de la justice comme ni nga dit, ce c'est pas le pastif mais c'est aussi un homme d'expérience. Mhm. qui a été là depuis longtemps. un homme de un homme du sérail ni valeur ni incarner les valeurs de la justice mhm. au sein de la magistrature tenions-nous le positionner certainement son conseil a prévalu dans le choix mhm. euh, des magistrats à leur poste parce que euh, les hommes politiques qui sont au pouvoir. Parce que Mom, c'est un, c'est un, homme du sérail, comme tu dis. Mhm. Donc le casting, il est très, très bon. Le casting est bon mhm. <laughs> Moustapha, l'observateur mhm. vient nous dire euh, l'administration centrale du ministère de la Justice comme un frigo, le cas Maguette Diop qui fait jaser mais xam nga am carrière ak seni at mayul ñu fenn cest à euh, rang. Mm-hmm. ci euh, ku ci euh, Diouf ancien procureur général Ibrahima mm-hmm. euh, lolu mo leen sauvé motax ñu frigo à la disposition de l'administration. Euh, de la justice. Mhm. mais euh, amana bu doon ño xamantene la amuñu ben ben ben durée ben ancienneté bi du ñak mën nañ bokk ci délégation bi nga xamantene euh, dañuy dem feulé feulé ci Tambacounda. Mhm. donc mais liñ ci liñ liñ ci liñ ci comprendre moi. xam nga tey Cour suprême indi nañ fa ku bees. Momadou mhm. Mansour Mbaye. procureur général bi nga xamantene moy financier bi nga xamantene tek nañ ko US indi nañ fa ko bees. Mhm. c'est-à-dire solo nañ ko ba mu jekk wala maa ngi maa ngi maa ngi glissé ce sujet bi. non non non allez-y après on va rectifier bi daf ñuy indi problème parce que dañuy dagg suñu analyse. waaw séddale ci loo xam ni c'est le même mun mun nga ko kii quoi mais parce que reddition des comptes yi est door parce que dama bëgg ñu ñëw vraiment si euh, pôle financier bi. Mhm. allez-y Moustapha waaw mais xam nga pôle boobu noonu tey jii. ki ñu fa teg selon information yi am da ngay dégg ñu ne euh, tribunal euh, du travail lañ ko jëlee indi ko fa. mu doon koo xamante ne miin na lu jëm ci wàllum finance ak traque ak yu ni mel ak yooyu noonu. Mm-hmm. moom tamit am na passé bu rafet boo xam ne nit ñaa ngi ko koy waxal mooy comme quoi que ne. Mm-hmm. bokk na si ki nga xam ne il était pressenti am na ñu wax loolu il était pressenti pour mu atte procès kii nga xam ne mooy Adji Sarr Ousmane Sonko. Mm-hmm. mais après xam nga ñoom euh, bu ñu lay jox mbir dañuy seetlu ndax kii dina leen defal li ñu bëgg. après si la jógee foofu ñu yóbbu ko tribunal du travail ñi jëlee ko foofu dénk ko fi nga xamante ne moo di pool financier bi. loolu benn chambre yëpp defar nañ ko lépp normal la mhm. léegi nag li waral mu mu mu tiital gars yi mooy dafa di mhm. ab bërëb boo xamante ne mhm. lépp loo xamante ne mooy détournement lépp loo xam ne moo di corruption lépp luy concussion lépp loo xamante ne dafay am rapport ak yu ni mel foofu lañ koy àttee léegi nag comme foofu lañ koy àttee dañ naan ñii kon pare nañ pour jàkkaarloo ak ñun loolu te parce buñ fàttali ko Macky Sall moo ko fi tegoon mais ba mu ko fi tegoon solul ko woon yëre néeg bu nekk mu teg ko fay jiite daal di koy waajal léegi nag ñoom ñu ne ñi pare nañ pour jàkkaarloo ak ñun importance bi muy am mooy xam nga su ko bàyyi woon fële comme façon bi mu doonoon bu njëkk ba mm-hmm. mën nañ ne euh, fi ñu toll nii mi ngi mi ngi lompoñ ñi ngi yéexal dossier nangam ak nangam mm-hmm. mais dafa mel ni Macky paaka bi benn moment da leen koo daasal jox ko gars yi dem mm-hmm. parce que fi ñu toll nii bu ngeen amee seen parquet financier bu nekk na la ñee dañuy am latitude Euh, am am am am gën a am temps gën a gën a gën a am disponibilité mën nañ ko tuddee noonu entre guillemets donte bu ñu nekkoon fële danañ ko am mais gën a gën a mën a gën a mën a jox temps li nga xamante ne moo di procédure atte yi nga xamante ne moom la ñu jëgmal moom la ñu dëgmal jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoo waa ñoo ñoo ñoo fi nekkoon ci jiite réew mi di passé moo tax ma am yaakaar ne loolu moo waral ñu bëri si ñoom ñu commencé di tiit parce que dañu gis mbir mu nu mu demee ak ñi ñu fa teg te li ëpp solo. ci mm. li nga xamante ne moom la nit am ci ñu fa teg mooy amagul kenn koo xam ne dañ ko fa indi nga dégg ñu la par exemple mbokk jomaay la wala moo ko moo defal nii wala kii mbokk Ousmane Sonko la wala amul compétence bi mhm. man critères yooyu man dama déggagul ba ñu wax ko ci on a mis les meilleurs alors voilà man déggaguma ñu wax loolu hmm. te pour man loolu mooy li ëpp solo maanaam tey ji njàpp boo doon ñëw ci journalisme ngay teg benn bureau hmm. ñu ne da ngay teg benn organe boo xam ne mairie ngay dajale hmm. nga teg ko ba pare te gisuñu kenn ku ne kii kii magu njàpp la wala kii rakku njàpp la wala kii mox njàpp daan ànd waaye lu lu wax naan kii mën na liggéeyam kii xamee nañ ko fii kii mën na li muy def kon foofu pour man gisuma fa problème. ñoom mhm. dañu war a sant yàlla sax pour man parce que bu ñu leen tànnaloon ñoo xamante ne ay benn wii wii lañ dañuy ñëw toog lu leen waa ji wax ñu def ko. su boobaa la war a tiit. Mhm. mais ñii nii dalay leer na am na si ñoo xamante ne boo leen bëggoo def loo leen li dañuy bañ parce que ñoom si ay ay homme de principe lañu. Mhm. Tout à fait. Merci beaucoup Mustapha. merci beaucoup à euh, euh, Sen. Euh, mon oncle nous nous ñu dugg ci deuxième thème comme ça nous nga nous développer pôle judiciaire financier la reddition des comptes mon oncle est-ce que nous avons wax ne fu mu toll déclenché parce qu'on a vu vraiment des nouveaux visages ramenés, qui annoncent vraiment que la traque des biens mal acquis waaw parmi ces nouveaux visages pour compléter Moustapha allez-y mm-hmm. mon oncle qui nekk cour suprême aussi ràññee woon nañu ko ci procès Hissène Abré. Mm-hmm. waaw te Macky Sall def naa mm-hmm. Sénégalais yi fàttewuñ ko léegi nag euh, pour dugg dans le vif du sujet oui le parquet financier euh, Moustapha euh, Macky daf ko defoon pour suul CREI yi waaw parce que créer yi de rëccukaay mais ba tey parquet financier bi baax parce que je crois il faut que les juristes le confirment que mën nañu Sauter l'étape de la haute cour de justice mhm. indispensable pour euh, juger un ministre wala quelqu'un comme privilège de juridiction mhm. devant la haute cour de justice comme nous avons créé des faits, Karim invoqué son privilège de juridiction mhm. créé de ko juger quand même malgré qu'il fût ministre au moment des faits qu'on lui reprochait donc tey vous bu mettre sur place cette juridiction que le parquet financier Nous avons fait connaître des délits financiers et économiques loolu dafay rafetloo suñu njort rek ni équipe dirigeante bi. lépp lépp ci bëgg step by step pas à pas étape par étape donc euh, parquet financier fi mu nekk ni am pool boo xam parquet bi. procureur instruire. pool je juger ak pour d'appel mm. kon ñom am may nañ deuxième degré de juridiction manam mën nañu interjeter appel mais a ay chambre criminelle pour voir en cassation rek nga mm. nous def appel mm. donc euh, je crois que euh, tribunal la bo xamné dañ ko pour délits financiers yi ak les délits liés aux passations de marché et à l'éthique kon tay ji ñépp xam nañ ni Sénégal rapport yaa ngi fi ni gaañ. Hmm. nga nit ñi jéxatuñu li fi nekk ci rapport kese kese kese pour liquider ko problème la kon cour bobu déjà liguey stock mu ngi koy xaar. Hmm. stock liguey mu ngi koy xaar. amuñ temps non stock liguey mu ngi koy xaar. lolu ci nonu ngay comprendre ngisaane wa appel bi nan dans les jours et semaines à venir danañu japp ay nit ñu bëri ci prétexte sur reddition de compte ñom lolu la wax ci sen lettre bi. Euh, me revisiter ko. Mhm. Euh, ba noppi di commencé sax naan am faute de gestion la nañ leen laaj ay pièces justificatives rek demande d'explication. ñu lépp la ñu ñu wax lañ quoi euh, di attirer attention nit ñi sax ñu ngi mhm. le parquet financier mooy répondre à cette forte très très forte demande sociale qui la reddition des comptes. Mhm. parce que fi mu nekk ni xale yi li dund bi cher ak mais injustice fi am. Mhm. ci jalgati suñu xaalis. ak ci ñu rey suñuy doom ak parce que loolu c'est la demande sociale la plus pressante kon ils ont à cette demande sociale. Mhm. président Bassirou Faye bu justice mhm. parce que rek dañu Ousmane Sonko son droit d'interjeter appel. Tayji, nous euh, ñu toutes les instances de la justice teg fa ay homme intègres yoo xam ne bu ñu commencé liggéey bi kenn du am Bouba, wax ñoom bu boobaa dañu ñu ci Sénégal by justice bi doxal corps de contrôle yi am jox parquet financier parquet financier bi aussi lu enquête euh, ñu instruire ko Nous ko nga xam ne kenn du ci les détenus d'opinion détenus politiques ils sont très intelligents mm. parce que savent que le rouleau compresseur arrive donc c'est lu Sénégal soxla la a besoin. ne euh, dañu que a dañu regarder comment naka sauter l'étape de la haute cour de justice pour les ministres parce que y a ay intervenants j'ai fait une émission ce matin quelqu'un a insisté a persisté mm. qu'avec le parquet financier soxlawul ñuy les ministre haute cour de justice. il tamit y' a un commentateur là euh, j'ai pas retenu son nom euh, ça nous évitera l'étape de la haute cour de justice su fekkee ni loolu de ma euh, Macky Sall mais noo mën a comprendre kon démb nga dégg Mansour Faye def benn poste si saa si. si si ne moom kenn kenn rapport épinglé ko kenn jàpp ko ci dara du nang setal boppam quoi. xam nga lay wax loolu xëy na binduñu Mansour